pan euh, mbas moko arrêté won ren fexé nañu ba mu yegg may féliciter président Seyni Ndir Seck ci liggéeyam ci taxawayam ak wa fédération ñu ko jàppale ba ñu yegg fi tay donc ba am résultat yi ñu am championnat bi jeex première division mi lég mu jeex donc ñu koy encourager déwénee inshallah dinañu fexé ñun aussi ñun ñëpp ñu gën ci japp football féminin bi gën a développé wu ca parcelle am nañu plus que juroom fukki école yu tek élémentaire donc gëm nañ ni talent bi mi ngi fofu donc euh, en tout cas nous nañu fexe ba pour le football féminin développer au Sénégal développer au à Dakar développer au niveau de l'arrondissement des parcelles. am un stade de baisse, donc nous avons ñaan fédération autorisée nous ñuy recevoir un match nous recevoir un match championnat pour développer le football féminin bi. encourager les acteurs encourager l'équipe de Gazelle de Bignona très jeune très brave hein. donc la prochaine ce sera la bonne et Inch'Allah... ñun ñëpp dinañ ànd jàpp ci di remercier nag sama sœur euh, Maimouna Sissoko madame Khouma ci nga xam ne engagement bi mu def mobilisation bi tey ñëw ànd ak ñun pour que vraiment ñu jàppale USPA euh, fexe aussi mu teew ensuite moom nag millième la retrouvé parce que ancienne footballeuse la Sirène la doon joué donc maa ngi koy félicité di ko encouragé di wax ni victoire bi moom moo ko moom ñu ñëw fekkee final bi euh, suñu waru gar la parce que ñun doomu gox bi doomu gox bi lañu ñun waa Bignona lañu kon suñu xale yu jigéen ñi suñu doom yi suñu rakk yi bu ñu ñëwee di football final jaadu nañu ñëw fekkee ko teewee ko encouragé leen ñu xam ne seen ginnaaw euh, Bignona yëpp autorité euh, responsable yi Bignona ñëw nañu appuyer seen équipe suñu équipe. waaw damay njëkk euh, ndokkeel xale yi nga xam ne ñoom ñooy waa Parcelles Assainies yi xale jigéen yi football nañu ba yàlla may leen dam ma leen ndokkeel bu baax mérité nañu seen victoire waaye nag gàcce gaala ma ci xale xale jigéen Bignona yi. fu ñu jógee sori na ñëw nañu fekkee nañu final bi joué nañu def nañu seen kattalay kattan waaye tey ndam yàlla dafa dogal ndam dem ci waa parcelle asini dañuy ñaan yàlla rek bu beneen yoonee ah ndam ndam ñëw ci na waaye am na loo xam ne mat naa wax mooy équipe bi jigéen ni ñu taxawee ni jàppale bi moo def te bu soobee yàlla daañu fexe daf ñu kattalay kattan ba jàppale nekk ci xale yi ba xale yi bu saa ñu ñëwaatee jongante ñu daal di mën a am victoire maa ngi leen di encouragé bu baax a baax ne leen li ci kanam rawelu bët bu soobee yàlla à prochaine fois ñoom itam daañu am ndaw. football si nañu def nañ seen tournoi division 2 amul benn autorité politique bi ñu bu ñëw taxaw jàppale xale yi gestu leen dara topp leen président aw dama koy félicité parce que moo ngi yendu a xale yi kenn mësul ñëw taxawu ko. entraîneur bi Yékini maa ngi koy félicité parce que gestu na gisul kenn ci ginnaawam tey nag final yow mën a nit ñi ñëw taxaw mais démb bu ñu xale yi soxlaa ndibbal bu ñu waree voyager dem Kolda dem Ziguinchor dem feneen dañuy taaba taaba di fexe lu ñu yóbboo xale yi li ñuy lekk dañ koy ñafe fu ñuy dëkk dëkkuwaay ñoom ñoo koy ñafeel seen bopp kenn jàppalewu leen tey nag yomb nag ñu ñëw taxaw di wanewu ci télé bi loolu dafa yomb waaye bu soobee yàlla dañu delu xalé yi dañu delu ak ñom defar wat bu baaxa baax def jappale bi nga xamne xalé dañ ko bérité té buñu delu fay bu soobé yalla ah yalla mëna ñam bay nam ñu ditam